Diouassifou TV nañ doxal Diowass. asalaamaaleykum waa Kerembo asalaamaaleykum waa Mbomboy asalaamaaleykum waa mbokki Noto Diobass damay commencer par féliciter équipe bi nga xamante ne moom gagné muy ASC Kër Dombe di également. encouragé hein. ñi nga xamantene wa waa ASC Ndandouk ñi nga xamantene tay tey dañoo perte final di len wax ni rek sport non la bi yon da ngay gagner Benen yon nga perte te yalla dogal na tay da ngeen perte donc ma ngi len di ñaanal yalla bu benen final amate aussi ngeen gagner di len encouragé te di len wax ni len également vous n'avez pas démérité donc la victoire a été remporté par euh, ASC Kër donc il Inch'Allah, allah dina nekk victoire di victoire. Je profite aussi de occasion de remercier les organisateurs Moi je ay jeunes frères yi nga xamante dara le développement localité bi nga xamante ne moom encourager encore une fois di merci à coono parce que li yombul di len remercier ci choix bi nga xamantene ne porté nañ ko sur ma modeste personne pour que mon monde vraiment que le parrain de cette finale di remercie remercier ci marque de reconnaissance bobu noonu ne len aussi nous sommes là pour la jeunesse nous sommes là pour les femmes nous sommes là en quelque sorte pour les populations de jobas fépp foo xamantene wa waa soxla nañu fa vraiment dinañ dag suñu yité def suñu déplacement dem assister parce que li lañ am pour jobas di profiter aussi ci occasion bi ne leen yeen kat ay ndaw ngeen donc inscription sur les listes électorales commencé na dañ bëgg ngeen dem inscrit massivement sur les listes électorales pour que ñu puissions falat suñu candidat à l'élection présidentielle de 2024 le président Macky Sall. remercier leen parce que peut-être ndaw yi yëngatu wàllu politique au niveau de Jobas bëri nañ donc bu ñu jëlee seen choix porté ko sur ma modeste personne du ma def leneen lu dul remercier leen accueillir ko aussi avec beaucoup d'humilité di leen wax ni leen aussi ñun ndaw jobaas lañu dañoo ñëw pour jobaas bépp ndaw boo xamante ni yaa ngi yëngatu ci wàllu sport wàllu leneen te développement jobaas tax laa vraiment loo ñu woowee ci loolu rek incha allah dañ ciy ñëw di leen remercier encore une fois ci choix bi nga xamante ne porté nañ ko sur ma modeste personne. bien sûr on est pour ça donc combat ndawu Jobaas mooy suñu combat parce que lépp lu ñu am lu nekk donc dañuy daw indi ko Jobaas kon donc combat Jobaas donc ndaw ñi muy wàllu sport comme football bi mais y a d'autres aussi qui son à Jobaas y a les tout donc bépp ndaw boo xamante ne yaa ngi dëkk fii au niveau de Jobaas. nous ñu sollicité par rapport ak li ngay def non seulement de nous assister mais ak non maigre moyens yi nga xam te lañ am aussi nañ ci jappalé pour won la ni la aussi développement jobas kessé mom moo ñu tax a jóg ah, boobu remarque bu am solo la parce que Jobas, c'est constitué de plus de 66 villages donc tay donc électorat Jobas, bo xolé à part les trois communes de la ville de Thiès bokk na ci électorat bi nga xamante ne dans le département de Thiès donc donc tay ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo nek au niveau de Jobas, la position bi nga xamante la dans le département de Thiès mais également dans dans le Sénégal donc am solo am au niveau de Jobas. mais bon nous duñu comme donc ñongi ñongi ñongi ñongi Jobas, pour politique aussi mais di dox pour social donc euh, doléance bobu non dinañ ko fi nga xamantene lañ

mom lañ am pour des populations de Diobass moom moo toll noonu donc duñu xaar xaaruñu kenn buy jóge ci Allah bi pour jappalé ñoom bu ñëwé nak dinañ jël mais nak duñu xaar kenn mu jóge ci Allah bi duñu jappalé té ñu nekk fi am suñu ay quelques moyens nga xam tane mënu ko mettre à la disposition des populations té duñ ko def donc lool dal ñoo ngi profité ci occasion bi aussi ah tous les responsables qui sont ici à Diobass nekk aussi dans le département de Thiès nekk Sénégal aussi dañ bëgg aussi ñu jàppale ndaw yi nga xam te ñoo nek jobas parce que jobas amna position stratégique bo xam te sincèrement jàppale ko day lu war ñu profité occasion bi aussi lancer un appel au président de la république diko wax niko ndaw jobas ñong koy talal loxo vraiment pour ñu ñëw jàppale ñu bu baaxa baaxa baax parce que yelloon nañ ko première dame aussi suñu soxna yaangi ni suñu euh, mbag ni suñu jigéen ñi ñoo ngi vraiment soxla nañ ko aussi comme ni ñu koy défé dans les autres départements diko def dans les autres communes mu ñëw aussi dans le dans le monde rural parce que am na solo li def dans les dans les dans les autres communes bu ko defee aussi euh, dans le monde rural day nekk loo xam te ne am impact lu am portée sociale vraiment nous ngi profité ci occasion bi di ko ko di ko ko lancé mu ñëw les dames qui sont ici au niveau de de Diobass vraiment je vous remercie. sommes ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout jeunesse bi Mère, yi paa waa Kédembo wa Taxak wa Nandu vraiment content nañ si yeen japp ngeen si bés bi japp ngeen ci bés bi torop surtout zone yi depuis ce matin ba léegi togul ga liggéey di déménager dem indi bass ay sena musique lepp content nañ ci yeen yeen ñëpp wax Papis comparé Papis suñu grand la suñu tons la suñu lepp la té en plus nit ku baax la am taxaway si dëkk bi Euh, mënuñ koo jéggi fii di dem uti parrain feneen ndaxte moom suñu lépp la suñu référence la tamit kon buñ ko tuddee bés bi rek da koo mérité moom tamit ñoo ngi koy remercier bu baax a baax gis nañ ci taxawaayam bu baax depuis bi mu commencé ba léegi defal nañuy lépp. asalaamaaleykum xam naa ne kaddu yi moom kaddu cant rek lay doon parce que bés bi moom bés bu rëy la ci ñun. Euh, ñoo ngi remercier ñëpp képp ku fi teew évidence évité yëpp la ñoo leen di nuyu di la remercier si seen xam ne woote woote ñu wuy si la yombul bés bu mel ni yombul woote ñu wuy si la yombul ñoo leen ci remercier ci loolu euh, tournoi nag nii la fa am ñaari équipe yi finalu am ka koy yóbbu am kuy xaar ñu ñaan ñuy ñuy félicité waa waa Kër Jëmba euh, waa naanuk vous n'êtes pas du tout démérité ñu leen di encouragé xam na beneen yoon ay daak félicité suñu grand frère suñu magu bopp Papis Faye moom daa dëkk ci gox bi di def ci gox bi xam lu ci gox bi moom nag bon ba mu déggee tournoi bi xaarul ñu woo ko moom moo ñëw fekk suñu Papis Faye moom moom ñëw moom moo ñëw fekk suñu moo tax ñun dañ koy bàyyi ak rek moo xam fu mu bëgg egg yàlla na ko saa buur bi àggal foofu euh, ñu ngi remercier ñëpp waa Kédé Mbox waa Naanuk waa euh, waa Taxax ak waa Kër Jëmb di waa Mboma ñëpp di remercier waa tim bi euh, di teg nuyoo bi ci loxo suñu suñu euh, suñu grand Thierno fay ak Laye fay mu yóbbaale ñëpp. Lembra de